jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak euh, Abdou Khadre Seck aadama Diallo moo nekk ci technique bi mbokk yi tey ñu dal nag euh, Amadou Diarra monsieur le maire nekk maire bu Pikine Nord moom la ñu fas yéenee waxtaanal danañu waxtaan nag ci ponk yu baree bare waaye nag li ci ëpp mooy Covid 19 bi nga xamante ni tey lëmbaaje àdduna bi ñu gis ne indi na nag ay gàllankoor yu baree bari ci réew mi euh, amadu Amadou Diarra euh, Rewmi euh, FM maa ngi lay nuyu. Cheikh Abdou Khader Seck maa ngi lay nuyu di nuyu waa Rewmi FM. di nuyu ñu nekk ci réew mi ak ñu nekk ci bitim réew. jërëjëf euh, monsieur le maire li nga xamante ni mooy woppi coronavirus gis nañ ni nga xamante ni moom la def ci àdduna bi commencé ko def ko tamit ci Sénégal lan moo ci sax xalaat wopp ji bi mu bi nga ko déggee Chine muy law ba ñëw ci Sénégal en tant que maire. jaaxle moo ci sama xalaat jaaxle rek doon déglu euh, ñi nga xamante ne ñoom lañ ci yaakaar muy médecins yi nekk Sénégal ak autorités yi yàlla def na ñoom it dégg nañ leen. médecins yi taxaw nañ ci commité national de gestion de l'épidémie boobu nekkagul pandémie ba ko organisation mondiale de la santé décrété pandémie ba tey euh, gis nañ ne professeur santé yu nekk ci Sénégal médecins yi docteurs yi spécialistes yi ak ministre de la santé. ak gouvernement bi ñoo ngi jël ay dispositions yi nga xamante ne euh, moom la ñu gis ci àdduna bi yëpp pour ñu mën a xeex ak euh, ennemi bi muy virus corona muy coronavirus. donc euh, topp leen lañ mënoon def parce que suñu xam-xam yeggul ci wàllu santé Sénégal dañoo tàmm su Coupe d'Afrique jotee ñëpp nekk ay entraîneur jëlal kii dugal kii bu élection jotee ñëpp nekk ay politiciens bu école di ubbi ñëpp nekk ay jàngalekat. bu feebar jotee ñëpp bëgg nekk ay docteur man bokk ma ci loolu damay wax sama aqulaay taala man maire laa jànguma santé ko déglu ndigal yi ak xam-xam yi ak gëstuwaale ci pour xool lan mooy edee man ca fa ma nekk ca fa ma yàlla jox cër yan mesure laa ciy jël yu mën a aar sama askan mi am te ne moom la yàlla teg sama mbagg Euh, jërëjëf euh, monsieur le maire euh, li nga xamante ni mooy état d'urgence bi gis nañ tamit ne bi ñu ko décrété fii nga xamante ni maanaam moom mooy Sénégal fii nga nekk muy Pikine noor ndax bokkoon nañ ci bokk nañ si ñi nga xamante ni tey respecté nañ état d'urgence bi ak tamit ndax bokk nañ si ñi nga xamante ni tey mesure bariere yi respecté nañu ko. waaw benn bi mooy mesure barrières yi je crois que mesure barrières yi maa ngi ciy def sensibilisation bu am solo mu des couvre-feu bi couvre-feu bi liggéeyu police la mais damay wax ak sama akulaay taala man ku ma xam xam ma wax dëgg. Pikine Nord am nañ difficulté trop ci wàllu surtout jeunesse bi jeunesse bi euh, avant koor gi. police dama leen mujj yërëm def naa ko sax sama Facebook naan nañu respecté police ne leen jàppale ci liggéey bi nañu collaborer ak ñoom parce que police amul personnel bu nekk angle bu nekk buntu koñ bu nekk mu teg fa nit nit ñi ñoo ñoo war nite couvre-feu ñu ne vingt na ñëpp fatu wala na ñëpp lëlu waaw booy lëlu kay yow bu dee seddaay la yóbbaaleel sa mbàjj doo lëlu ba seddaay bi jëpp la nga génn ci mbedd mi ay une heure du matin minuit naan damay wuti mbàjj bu ma sàngoo yaa ko war a sóoraale balaa vingt di jot bu fekkee xiif la nduggil loo lekk balaa ngay fatu bu vingt heures jotee nga fatu bu fekkee fa ngay jógee dafa sori mais yaa xayti cinq heures six heures nga départ xanaa deux heures de temps bu dee ci banlieue bi nga dëkk di nga yegg fi nga nekk mais ñu jàpp ay nit may intervenir fii tey dama ñaan police ñaan ñaan ba dama rus dama rusati ñaan police xale yi di dàqante police yi di leen kokkali ñii di nekk ci kaw terrasse yi ñii di yundu bu ñu gisee auto police bi daw loolu vraiment amul fulla amul fayda ba tey mu ngi am ba démb rek am na ci mbedd bi ma dëkk man boole ci am na ci mbedd yëpp am na mbedd yi nga xam te ne police mënu fa yegg donc man en tant que maire wax mooy ñu def yu yëfu fulla quoi nga xam te ne fa ngay toog doo dox wala bu ñu la joxee nga sonal say mbokk sonal sa bopp sonal laale police mais nit ñi dañoo civilisé d'accord nañu civilisé civilisé boo civilisé da ngay ñu lay jàpp après couvre fa ngay civilisé da ngay jomb ñu lay arrêté wala di la buntu xatal wala di la dóor wala di la toroxal civilisé mooy mooy bëgg sa bopp bëgg sa yaram bëgg aussi say mbokk parce que ku kuñ ci jàpp sa mbokk jóg ñuy jooy ñiy tiit am na ñu xamul police donc mën ñoo ñu lay wax ba tey jeexul nit ñaa ngi ci angle yi ñaa ngi toog yéex a jóg affaire africain yooyu ñu naan heure africaine bu ñu la nee tey vingt la nga toog ba sept heures trente nga ñëw di ràng yooyu dañ ko dafa war a xew yi ci nit ku nitee donc j'appelle véritablement aux gens de Pikine Nord mhm. nañu nañu am benn niveau d'élévation d'esprit nañu am civilisation bu leen di may ñu leen di duut baaraam man seen maire Amadou Diarra may def appel boobu ñu leen wax ne vraiment police suñuy naataangoo lañ ñun ñoo tax ñuy jóg dañoo yor njaboot comme ñun mais dañu ñëw bëgg a faire respecter couvre bi ngir ñu toog suñuy kër wàññi roofaloo bi moo tax ñu ne vingt heures mais mënoon fi sax gën a wàcc donc jeexagul nañ ñaan yàlla buñ ko defee ci diir bu bu gàtt virus bi amatul ku mu transmettre mu dem mais di ko te di ko taataan di ko dugal ci ñun muy dugg suñuy yére di dugg suñuy loxo di dugg suñuy kër daf ñuy sonal ba pare diir bi mu fa waroon def pour dem day gën a gudd yàq njàng xale yi yàq économie bi loolu amul solo donc nañ ko muñ ci lu gàtt mu dem moo gën ñuy ñu koy jëlee lu ñàkk fayda di ko jëlee avec irresponsabilité mu gën fee yàgg su feroon def ñaari weer def fi juróomi weer. jërëjëf euh, monsieur le maire euh, Amadou Diarra euh, maire bu Pikine Nord mbas mi tamit bi mu commencé ci réew mi gisoon nañ président Macky sàll woo ñi nga xamante ni tey ñoo nekk ci kuje gi woowoon na société civile bi bànqaas yu bari secteurs yu bari recevoir na leen waaye ñi mu njëkkee woon mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum politique bi appel boobu président defoon nan la ko monsieur le maire Amadou Diarra gisee woon moom. waaw euh, président Macky Sall bu defaloon appel appel boobu doon cuune ndax ba mu defee njëkkee def déclaration wax ne guerre la ñu nekk jamono guerre nag politique dafa war a lalu dafa war a lëlu dañ ko war a confiner politique dañ ko war a mettre en quarantaine waxi politique calcul politique jëfu politique dañ ko war a teg ci suuf parce que guerre lañu wax bu ñu nangoo ne guerre la que virus bi moo ngi rey ay nit donc lu ma apprécier la te sama commune fanaa noonu laa def li président def damaa woote appel amul benn parti politique bu am récépissé légalement constitué ci Sénégal te nga am ku la toogal ci Pikine Nord boolewuma la teg la ci comité communal bi ma jël par arrêté municipal boole la ci biir ndax li mu ñu jox ndigal mooy ñu jël fukki nit ak ñett acteurs yi infirmiers yi police euh, service communautaire yi bàjjenu gox yi man ma ñëw lawal ko fukki nit ak ñett maximum lañ ma waxoon xam nga sama comité ñaata la. 77 mm-hmm. personnes juróom-ñaar fukki nit ak juróom te bokk leen langue politique. bokk ñu fukk ñu weesoo fukk ak ñett yi damaa cee yokk. juróom-ñaar fukk ak lu topp. mais li tax ñu may ñu dañoo utiliser luñu wax whatsapp sa numéro téléphone la jël rek dugal la ci maa lay woon numéro téléphone. wax ak yow. waaw mais commune bi commune bu politique la kon mbiru politique dugalal leen ko ci. ni ko président defee ci appel laaj bi nga ma laaj. noonu laa ko defee fii maanaam damaa roy ci président. Hmm. nee na ne guerre la ñu nekk ba nation bi yëpp acteurs politiques nationaux yëpp jóg man man décentraliser ko sama biir commune ma woote. ba ma wootee nag hmm. parti yëpp ma wuyu si. député yi nekk fii APR mun naa ci tudd député Salamata Kolera mi dëkk Pikine Nord ak député Niba Sène muy Dieynaba Sène mi nekk de la diaspora dëkk Pikine Nord ak tous les responsables des partis yi am ci Sénégal te nekk Pikine Nord boole naa leen ci ma leen di gërëm di leen sant ndax mënoon naa leen wax aussi ñoom it ñu bañ mais niñ ko déggee appel bi au niveau national au niveau communal yow laay xibaar tey Cheikh Abdou Khadre Seck que Pikine Nord woote boobu ak symbiose boobu ak booloo boobu mutualisation des forces des moyens la def ci comité bi ma taxawal jiitu ko ñu topp sama ginnaaw ci liggéey bi ñu sant ñu def ko amul kenn ku ne un ndax lépp dañ ko teg ci taabal bi ñu ñu seetu ko loolu nag la seen président woote au niveau national ma bëgg ñu ñu jël politique def ko quarantaine au niveau national ñu jëm ci ñu jëm ci xeex affaire bi ba mu jeex. am fullaay bu toll ni ñu xam ne guerre bee tax ñu ñu ñu roof ngànnaay politique yi su guerre bi jeexee ñu am fullay suñu d'accord ak président ñu génnewaat suñuy ngànnaay politique. léegi li nga xamante ni tey moom mooy déclaration bi président Macky Sall defoon dañu déggoon mu ne comité de pilotage la waxoon ba mu yàgg mu mujj ne comité de suivi waaye coow amoon na ci yaakaar naa dégg nga ko ci ni nga xamante ni moom lañu ñu joxe woon marché yi jëm ci wàllum ceeb bi ak wàllum diwlin gi ak suukar si ak transport bi te Mansour Faye euh, yore woon yore ko ñu bari nag doon nañ ŋàññi. Mansour Faye si ni mu ko joxee ñenn ñi jàpp ne ak léexóor daf cee daal di am ñenn ñi jàpp ne par parloo daf cee daal di am ñenn ñi jàpp ne Diop si mi nga xamante ni euh, député la ñu jox ko ko tamit du woon lu war coow loolu déggoon nga ko en tant que maire euh, lan moo ci sa xalaat. waaw xam nga comité de suivi comité de pilotage yëpp ay kuréel la rek yu ñu teg pour ñi ci war a bokk ñu bokk ci. mais taxul ñu suspendre gouvernement bi. Euh, Mansour fay balaa feebar bii di am moom moo yor ministre développement communautaire. du teggin. feebar bi jot ñu sempi ko comme weñ ci soow ndax goro président de la république loolu c'est irresponsable donc Mansour fay li mu yor la war a yor ma préciser ne man bokkuma APR bokkuma ak président Macky Sall bokkuma ak Mansour fay te fas yéene ma bokk ak ñoom ma préciser loolu ba pare donc yeggale sama wax donc su fekkoon ne feebar bi dafa am ñu nommé Mansour Faye ministre développement communautaire dindi ko fa nekkoon ñu ne da ko da ko bëgg a jox bu fekkoon dafa am keneen ku yor développement communautaire ñu feebar bi am ñu teg benn comité de suivi jiital ci Mansour Faye ñu def ma wax ne mbokkam donc Mansour Faye ndimbal lu jëm ci askan bi ministère am moo ko yor euh, secrétariat euh, alimentaire à alimentaire moo ko yor ci service am la bokk ministère développement communautaire moom moo ko yor donc suñ ko joxee loolu dama bëggoon vraiment ñu may Mansour Faye jàmm mm-hmm. nañu may Mansour Faye jàmm nañu may Mansour Faye jàmm beneen bi actuellement muy moom muy gouvernement bi muy yeneen ministères yi muy collectivité territoriale yi dafa am loi bu décret bu président jël décret pour wax ne lépp lu jëm ci xeex bi corona bi lu jëm ci wàllu santé ci ay commandes yu jëm ci wàllu produit yu jëm ci wàllu xeex ak ay vivres yu jëm ci dimbali nit ñi pour seen résilience sociale économique yooyu doo ko jaaree code de marché publics maanaam doo ko jaarale ay appel d'offre mhm. waaw léegi nag Mansour Faye ministre la Amadou Ba ministre la amadu Diarra maire la Aliou Sall maire la keneen a keneen maire la. donc li mu yor bu ko neexee mu woo la yow Cheikh Abdou Khadir Seck nee la lii laa la commandé dañu waxante dëgg. bu ko neexee laa wax. mu bañ a def appel d'offre ndax dafa am décret bu teggi code des marché publics jaarale bi nga koy jaarale pour ku bëgg ñëw concurrence ñu def jaarale ko DRP wala ñu jaarale ko euh, appel à comment on appelle ça appel con concurrence. wala ñu jàllale ko ci appel d'offre yooyu yëpp bu dee ci wàllu xeex bii la mun nga ko tegee de côté. Ah, Mansour Faye nekk ministre ñu am lu ñu ko dénk. affaire bi war a bar xoolal fii may wax yow nii. sama commune pare nañ mais ceeb bi ñëwagul dawlin ñëwagul suukar ñëwagul saabu ñëwagul pat ñëwagul. xëy na ki ñu ko jox attanu ko xëy na xëy na nag bu xooloon moom fulaam xam ne kii ma koy waaj a jox. dakaa bëgg te mënu ko ma am fulaay dem jox ko ko am mën ko indi ko ma fay mu gañe ci li mu ciy gañe te mu ñëw jëm ca fa mu war a jëm loolooy fula parce que ci guerre la ñu nekk. kon boo defee appel appel appel d'offre. ñëw euh, benn waaye ñëw fële parce que nee nga bon sa xarit bi Diop si xaritam loo war koo jël te Diop mën na am ay camions yu wóor yu ko yóbbu léegi. nga jël Cheikh euh, Abdou Khadre Seck dugal ay dossiers yu baax. waaye ci dëgg-dëgg mënu ko. nga jox ko ko affaire bi taggatémbe ci yoon bi ku ñu wax. ki ko jox la ñuy wax Mansour fay la ñuy wax moo ko joxe kii boo ko waxee lu tax nga jox ko kii mu ne dama doon def aperçu dopp di di leeral mënoon nañ ko ne mais yow yoon may na la nga baral yoon may na la nga seet ku ko mën te te mën cee gaaw nga jox ko ko donc loolu moo tax ma bëgg ñu may Mansour Faye jàmm nit ñi liggéey ci ñaanal ko yàlla mu gaaw indi ndimbal bi te ñu xool ne tax dina dem ca fa mu war a dem ba lii passé mais tey Sénégal nit ñi di euh, focaliser wu ci loolu moi je suis pas d'accord man personnellement. Euh, jërëjëf euh, mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi tey ñu invité Amadou jara maire bu Pikine Nord li nga xamante ni nag mooy comité de suivi bi ak comité de pilotage bi sànq nee nga kuréel la kuréel la rek dañoo tànn 30 personnalités ci secteur yi baree baree bari. moo xam ci patronat bi la moo xam ci euh, taskatu xabaar yi moo xam ci euh, représentant mairie yi ak yenn institution yi euh, loolu nga xamante ni trente personnalités comité de suivi boobu noonu général François Ndiaye jiite ko ndax yow am nga si njort bu rafet que ne li ci président Macky Sall di séentu dina ko ci am. waaw bon man loolu xaw ma ci dara. xam naa ne ñi lay déglu ñuy déglu suñu émission bi dinañ ne kii moom lu ma xamul du ko wax. xaw ma leen. dafa naa kenn laa ci xam Aliou Sall. mi nga xamante ni moo jiiti association des maires toogal ñu fa. dégg naa nag ñeneen ay ay député comme ku mel ni Toussa Manga sama rax la ku seen coow lu mujj lii laa xam ne sax boole na leen parce que voilà intéressé ma trop tànn nañ ay structure tànn nañ ay opposition société civile vraiment président defar na pour ku nekk mën a toog am saytu boo ci def. d'accord mais mais monsieur le maire euh, fi may waxee mooy euh, xam nga tey par exemple tey yow maire nga am ngeen fa ay représentants. institution yi am nañu fa ay représentant patronat bi am na fa ay représentants kenn ku nekk am na ay représentants ñu la am na ñu la fa représenté ndax ñooñu nga xamante ni tey euh, toog nañ waxtaan ndax jàpp nga ne solution mën naa am. waaw ma ne loolu lañ leen sant mooy yoon mais njott ma li nga ne laaj njott naa ndax dina dox wala du dox ndax ku nekk di nga def sa liggéey wala du def si ngay xaw ma loolu xaw ma ndax dinañ ko def wala duñ ko def mais moom la war a def. c'est-à-dire ni ñu leen boolee foofu ku ci nekk da ngaa war waxtaan ngir Sénégal. waxtaan ngir secteur ba la fa représenté ba nga fa représenté moo tax ma bëgg a interpeller Aliou Sall nga xamante ne mooy géej Guédiawaye di président association des maires mu bañ fa toog toogaayu pri petit frère du président de la république di am kersay wax la mu war a wax. am fu lay jàkkaarloog ñoom kaasal ñoom nga xamante ne mooy seen capitaine tey. mënuñu fa yàgg man su ma ca bokkoon. la ma war a yóbbante ci groupe boobu nga xamante ne ñoom lañ dénk 1000 milliards ñu war ko séddale. sama baat dinañ ma dégg ci kaw. léegi nag Aliou woowu ma laaj ma sama xalaat man woo naa ko jotuma ko ma woo secrétaire général mbay Dione jox ko samay yóbbante ngir bu fa toogee mu indil ñu si li ci war wax ko fa ngir ñu dégg leen ngir ñun ñu bokk kuréel bi nga xamante ne ni transporteurs yi di laajee seen wàll ñu leen koy jox hôteliers yi di ñu leen koy wax secteur tourisme ñu leen koy jox yeneen secteurs yi ku ci nekk ci mille milliards yi ngay fexe ñu yóbbu la fa ñun kenn gënuñu cee yay ñun maire yi est-ce que Aliou nag dina am taxawaay boobu su fa taxawee taxawaayu boppam fàtte ñi ko fa ñi ko jiit ñu ñi ko jiital te mu jiite leen fàtt bay am comportement petit frère du président di am kersay su ma waxee nii ñu gisee ko nii wala ba ma waxee nii ñu yaakaar ne dama def dinañu yàqal ñun dinañu yàqal parce que jamono ji yaakaar bi dafa jóge ci gouvernement bi muy président de la république ñëw ci maire yi jamono ji may wax yow mhm. lu leer laa lay wax askan bi li ñu joxe ci un million bi dajul suuf nit ñi li ñu jàpp mooy su président defee loolu maire dafa am lu mu war a def. te maire yi ñoo gën a impacté secteur boo gis nag. lu tax parce que ñun dañoo tooñ. d'abord tooñ bi ñu di ko tooñ mooy président de la république parti APR la jo la yor. mais kan leen tooñ aussi. fa jëm ni président de la république parti APR la bokk. mais man xoolee ma ko parti sunu président de la république laa koy xoolee. te mu ñëpp xam nañu homme politique la. mais ci xeex bi c'est le président mooy jiite guerre bi. alors yi tamit ñu jàppee leen comme politicien lu nekk dégg nañ ko yi. ceeb bi bu ñu leen ko joxee dund bu ñu leen koy joxee seen i militants lañ koy jox pourquoi. pourquoi ce procès d'intention ci maire yi. te ñoom it bokk ay parti ñu fal leen ñu nekk maire war am taxawaayu ndeyu ñëpp. ni ko président Macky Sall bokkee parti nekk président de la république assemblée nationale jël loi d'habitation teg ci loxoom. jël ay milliards teg ci loxoom ñu nit noonu la ñu joxee ci suñu gox. ñu jóge ci ay parti soqoo ko ci ay parti compétir ba ñu dénk ñu war a nag summi mbubbu parti bi toogal ñëpp su fekkee maire yi mënuñu ko c'est irresponsable pourtant am na ay service de ay de contrôle yu war a mën a contrôler maire bi su amee taxawaayu porte politique wala lu war a dem ci askan bi mu demal ko ci militant am am na yar bu ñu ko war a mën a door moo tax premier tooñ bi ñuy tooñ mooy loolu maire yi amuñu capacité dépasser politique ci xeex bi defal ngir askan bi man wane naa la contraire te fa ma dëkk wax naa la léegi ni ma boolee képp kuy parti politique te arrêté bi boolewu leen ci sax man ma forcé boole leen ci ba ñuy juróom-ñaar fukki nit ak juróom-ñaar donc premier tooñ baa beneen tooñ bi mooy maire yi dafa am lu muy dundee muy ay tax ak ay impôts moom la ñuy wax recette mais Covid bii ñëw ak marché yi ñuy tëj je parle pour tous les maires du Sénégal waxuma sama bos rek mais maires yi seen marché yi bu tëjee ban ban commerçant moo mooy xëy di di fay juuti parce que liggéeyatoo fekkoon bés bu nekk ngay fay ñu ne léegi ñetti fan ngay liggéey kon li nga doon fay ko wàññeeku na ñu ne personnel ba mu yoroon na nga continuer di leen fay waaye nañu wàññi liggéey bi nañ dem toogi seen kër nga def service minimum waaye na nga ne ñoo yor service de set ñoo di dugg ci koñ yeeg ruq-ruqaat yi di dugal taxi ñooñu defatuñ ko ndax feebar bi bugguñu ñu daje ci miir yi ndax wàllante bi ndax kaa kon yeeg cas communautaire yi kon ñooñu nañu toog kon kenn dematul root xaalis buy dugg ña a fay xaalis buy dugg ñoom it affaire bi dal na leen ba ñu confiné leen ba ñu ba liggéeyatuñ waaw léegi ñun suñu poste foqul loolu moo tax ngeen ngeen bokk ci impacté yi premier ñun ñoo impacté yi ba pare mu ñëw nag mu des gouvernement bi mu ne TVA yi ñu daan dagg bu ko kenn jëlati impôt yi aj nañ ko fii ak ñetti weer waaw kon kay commerçant bu ko neex mu ne man du ma fayati sama kii borom kër bu ko neex mu ne du ma fay sama impôt waaw ñoom bu ñu fayul suñuy kees du vide kuñ ko teg du korona kon duñu impacté mm-hmm. waaw kon Aliou Sall bu toogee ci ko foofu ñuy séddalee 1000 milliards yi ñaata la war a jox maire yi fii may waxee yow 15 joxuñu ko dégg ko sax ñu tudd leen ci 15 joxuñu ko te pourtant président boole nañ ci mm-hmm. mais Aliou Sall lañ def turam moo tax may laaj fullaam ak faydaam may laaj mu bañ a wax ne su ma su ma waxee nii dinañ yaakaar ne la may raqu Macky Sall tax may wax su dee def cee nar a am jeune na génn yabal secteur général am wala benn vice président mu toog fa. parce que maire yi 1000 milliards yooyu su ma doon ñoom su ma doon ñoom 1000 milliards yi laay jël rek tas ko ci maire ak département yi dem toog. waaw mais mais monsieur le maire euh, dama lire tey ci presse bi euh, ñi nga xamante ni tey mooy secteur touristique bi ak aérien bi gis naa ne ñoom ay 77 milliards. Euh, jox nañ leen ko damay dégg tamit ñi nga xamante ñooy patronat bi dégg ñi nga xamante ni tey ñooy transporteurs yi sax euh, xayma nañ euh, xaalis bi nga xamante ni mais dégguma ci ma maire yi lan moo waral loolu. Ah, parce que man moom dégguma ko ci jooytu. Ah, man Amadou Diarra tey je me fais porte-parole de tous les maires. à travers sa émission. réew mi ngir ngeen jottalil ma ko. Aliou Sall jottalil ma ko général François Ndiaye. jottalil ma ko. président Macky Sall ñu xam ne bu dee dañuy wax Covid bi am na ñu mu impacté collectivité territoriale yi. seen recette dañ ko impacté ba amatuñ. président am na loi d'habilitation bu mu jël pour permettre ñu bu ñu bëggee def virement de crédit am yéene jàppale askan bi ci dund bi ci xeex bi ñu def ko ci cadre bureau municipal. am na yombal nañu pour ñu daje. pour am yéene def. waaw léegi bu ñu amee yéene def. te man-manu def amu fi ndax la dugg duggatul ku ñuy suqali du ñu impacté kon bu ñuy séddale mille milliards yi bu ñuy fàttee ñun nu ñuy defee tey maa ngi dégg ay maire wax def naa virement de crédit trois cent millions deux cent millions yomb na boo defee virement de crédit deux cent millions est-ce que tax na génnee nga fukki dërëm da ngaa viré da jël ay crédit crédit du koppar de crédit mooy ay chiffres ñu bindoon ci budget bi ne lii day jëm ci umra te umra amatul lii day dem ci ASC te ASC nawetaan amatul lii day dem ci tukki te tukki amatul nga jël yooyu ak yeneen ak yeneen yaa xam yow mu nekk sa mairie ba nga dajale yooyu nga ne lii ma yéene woon def ci at bi ci jëm ci yii te yooyu amatul solo faratawul nañ ko jël dugal ko ci xeex ñu ne la waaw nga jël chiffre yooyu bind ko yoon kon may na ma léegi la ma bëgg a def ci corona bi egg na dayo cent million waaw ce que am nga xaalis ba est-ce que juuti yi dugg na est-ce que ña waroon jëli juuti yi te toog seen kër bokk ci personnel bi dem nañ. est-ce que commerçant yi waroon dugal loolu ak ñi doon waroon fay impôts yi dugal nañ ko. léegi yow am nga say chiffre nag ci sa budget waaye koppar nekk fa léegi nag fournisseur bi nga xamante ne moom mooy jëf ci place maire. nga def sa appel ne dama bëgg a jënd par exemple téeméeri tonne. waaw ah, fournisseur bi jaay ceeb moo ngi tudd Abdou Khadir Seck. mu ne la am naa ceeb. am naa lu ëpp téeméeri tonne boo bëggee ma livrer la ko suba suba suba waaye wax ma kañ nga may fay boo dee wax dëgg di ko ne ah temps yi dëgg sama personnel doon wër juuti yi pour ñu fay toog na këram commercant yi ñoom it tëj nañ seen i marché impôts yeeg taxes yi dikkatul waaw loolu yëpp nag comme ñëwatul du ma la mën a wax kañ laa lay fay Abdou Khadir Seck mi yor xaalisam te ñu nekk ci jamonoy Covid mu am ay mbokk dencul xaalisam bankam def ko ci ay mbokkam dina ko jox maire boobu mu ne xamul kañ la koy fay du bañ kon yow boo viré ak loi d'habilitation ñu yombalal la ko nee na conseil bi jaratul ngay daje mais sa bureau municipal rek mën a daje yombalal la ko ba nga def say yéene en terme de virement waaw boo amul possibilité de recette amoo benn ponction financière bu ñu la jox amuñu lu ñuy wax euh, fond de concours ou de dotation spéciale bu ñu jagleel ni collectivité locale yi ci wàllu xeex bi su dee amuñu loolu liquide koppar dëgg du am ci suñuy compte su compte amul xaalis amul suñuy compte bu dee da ngay négocier ak fournisseur soo dëgëree fit rek nga koy jox marché mu jël bagage sam jox la parce que bu la joxee bagage sam ñetti fan ñeenti fan mu taxaw la soo ko mënul fay sa der yàqu ngeen demante ci yoon benn maire du ko def moo tax président su bëggee ñu xettali ko ci xeex bi décentraliser xeex bi ci mille milliards yooyu François Ndiaye jiite muy comité de suivi force covid 19 li ñu war a def mooy ñu génne au moins minimum minimum cent million ñu def un tronc commun maire yëpp jot cent millions suñu recette yu duggul suñu impôt yi duggul suñu TVA yu duggul cent millions yooyu dugal ko ñu ne nag doo leen ko def lu dul ci xeex bi bu xanaa boobaa day day am benn comité de suivi. am na comité de suivi am na corps de contrôle yi percepteur bu ñëwee nga indil ko facture. Mhm. comme ni ngay joxee marché rek marché bii moo ngi jëm ci jënd ceeb. mu mu mu dégagé ko parce que xaalis boobu 100 millions duñ ko def ci poosu maire duñ ko def ci valise jox bu ñuy jox maire dañ koy dugal trésor public percepteur téye ko. mais maire am nga fi 100 million bu dee da koy jëmale ci lu jëm ci guerre bii ñu nekk nii muy sanitaire bi. indil say kayit nga wax foo koy def. ndax say conseil daje nañ wala ndax bureau municipal bi daje nañ. est-ce que sa ceeb ñaata nga ciy jënd est-ce que gel ñaata nga ciy jënd loo wax ci ay blouse loo wax ca marché ba noo koy gérer loo wax ci service du d'hygiène loolu noonu. tant que dépense la bu jëm ci loolu cent millions yi dinañ ci génne su fekkee nag ay fay salaire la wala ay tukkeeg wala dépense yu bokkul ci Covid bi. cent millions yi doo ko laal. loolu maire bu ñu ko wax. di nga dem def dépense ci loolu. fournisseur boo woo ne ko livré ma mu ne la. mu ne la ah, ah, foo amee xaalis nga ne ko yëgoon ne cent millions yaa ngi fi. xanaa kon dina gaaw livré la. waaw mais mais mais mais Amadou Diarra yéen maire yi. Euh, xam nga kuréel ngeen man ci li ma gis man. Euh, bëri na ay kuréel yoo xamante ni ñoom dañu def réunion avant que ñuy dem ci euh, comité de suivi bi pour kenn ku nekk joxe sa xalaat mais yow. est-ce que yéen euh, seen seen seen organisation boobu noonu seen kuréel boobu noonu Aliou Sall jiite est-ce que réunion ngeen kane ñoom yéen lii ngeen bëgg ku leen ko waxal ak lii mooy seen njàmbat. waaw xam nga d'abord réunion mbooloo association maire boo ko defee rek violé nga loi parce que rassemblement la. mais mais mais par am na yeneen euh, technologie yu bees. waaw mais dëgg la moo tax ma ne am nañ email. email groupe. bu ñuy waxtaanee am nañ WhatsApp am nañ fi ñu joxe su am nañ suñuy téléphone joxe mais dafa am lu ñuy wax bureau. ñu fal bureau Aliou Sall jiitu ko am na ay vice président min euh, Aliou Ndoye ci la bokk euh, Bamba Fall ca bureau ba la bokk. mbay Dione Mbaye Dione mooy secrétaire général bi Ablaye Diop bu ginnaaw raay mooy trésorier am nañ bureau. Mm-hmm. bureau boo ñu war a waxal. ñun comme bokkuñ ci bureau bi te dañu am xalaat ci loolu am ci xam-xam dañuy consulter ak ñoom dañuy échangeante aywa secrétaire général way trésorier bon dañuy wax ci laissez-passer yi. mais dégg nga maire yi dañoo jóg daal wax suñu waa bureau bi taxaw leen ci ñoom ñu dox liñ ci war a dox ma egg ci président ñu am autorisation spéciale pour circuler ci couvre-feu loolu réglé nañ ko ñu wax difficulté ci daje ak conseil municipaux yi ndax rassemblement dañ koy tere président génnee loi d'habilitation ne léegi mun nañu may suñu bureau municipal nga xam te nu bëri bëri bëri juróomi lay doon wala juróom benn mu ne mun nañu daje wala genn wàll gi sax bu dajee donc facilité lañ waaw facilité yooyu buñ la ko facilité ngay mën a ak dem askan bi di la gis yaakaar la waaw te koppar amu fa ndax impacté nañu Cheikh Abdou Khadre déggoo la ma la maanaam ñun bu commerce bi doxul suñuy juutu dootul dugg bu entrepreneur yi liggéeyatul dootuñu am marché kon ñun suñu kees yi moo njëkk impacte ci Sénégal ah, état bi impacté wul ndax lan dajale nañ ko 1000 milliards jox ko loxoom ñun dajale ñu 15 d'accord mais mais kon ñun kon ñun Abdou Khadre ma daaneel fii kon ñun non seulement dañoo euh, dañoo dañoo impacté mais dañoo paralysé maanaam munuñu jóg munuñu dem yéene kese la ñuy dox man nii mënoon naa def sama vidéo woy na yéene naa jënd dix cent mille cent millions ci ay ay ay ay dund yéene rek laay wax maire bu la wax ni jënd naa ko jàppal ci loxoom bu teg ci bët nga dellu si ne ma maire bi def na ko yéene rek la ñuy def ak communication politique dinaa génne lii dinaa génnee lii bu la neexee nga rangale ay say ceeb boo ko wàññee motul vingt tonnes vidéo daf day fees bët boo ko tàllalee fii cat ba cat fii ba fii motul 20 ton day bëri sakkan maa ngi tëj fii man ay bagages boo ko gisee ci vidéo yi da ngay defee lu bëri la 27 tonnes kese la dajul sax benn quartier ba suñu ak sama yeneen quartier te loolu laa amoon te ka ma ko livré fayaguma ko 15 keneen ka ma bëgg a livré nee na ma moom du kee dama koy wax lu leer kañ laa koy fay mu ji doog a defal xaalisam bu jubóo wuñ mu dem. mu wutati keneen wax ak moom mu ne ma mënu ko ndax sama duma ko fi def muy tëgg a témbe ndax yéen mairie amu leen koppar ndax. su ma demee trésor dinaa fekk ne vous êtes au rouge ndax amatu leen impôt amatu leen TVA amatu leen taxe waaw kon bu fournisseur bi xamee loolu ñun fu ñu jëm ku ñuy defal bu ñu commandé ku ñuy livré dañuy bañ. d'accord mais mais mais monsieur le maire euh, Amadou Diarra euh, man li ma dégg ci déclaration bi président def. man dégg naa mu wax transport dégg naa mu wax sénégal yi nekk ci diaspora bi. dégg naa mu wax presse bi. dégg naa mu wax patronat bi dégg naa mu wax ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci wàllum tourisme. ñun la ñu fàtte. waa léegi yéen laa wax yéen est-ce que yéen président Macky Sall defagul na benn déclaration boo xam ne tudd nañ si association de maires du Sénégal. ñun la ñu fàtte boole nañ dama ne président dafa boole Aliou Sall président de l'association de suivi ci comité de suivi. léegi dama ne. boo ko demoon ci président nga ne ko waa yow mu ne la mais man sama warugal def naa ko boole naa leen wax leen ca comité ba seen fulla bu ñuy séddu ñu séddu leen dama leen di waxal. ñun ñëw war a am fulla yóbbante Aliou Sall mi ñu fa toogal man xam naa fi may sama baaraam de. Macky loo ko wax tooñ ko ba muy teg comité bi fàttewuñ ndax ki ñu jiite ci kaw au niveau national dugal na ko fa fa lañ koy waxtaanee léegi nag kooku mun na ñëw toog yambar yambare du li ma wax du moo bu ñaaw ah. waaw ndax patronat bi patronat bi. Eh, am nañ fu lay dégg ñu dégg leen ñu yuuxu. nangam ñu ba ci jakarta yi maa leen dégg ñuy kaas. ah yi nag jakarta bi doon fay juuti mairie yi dootoo ko ci nekk Kaolack ak Thiès ak yeneen ak yeneen. ban appel nga lancé Aliou Sall. am fulla nekk un véritable capitaine des collectivités territoriales. am fulla am fayda. am fulla a xool ne. su waxee leen général bi dina ne waxee ak man daf may jaay ne rek ko président. bu fekkee dafa am handicap yooyu mu yabal keneen mu toogal ko fa na ma woo ma toog fa léegi mairie ku nekk jot sa koppar. parce que nous sommes les impactés oubliés et ñun nous sommes un bu important ci ci xeex bi parce que président li mu joxe dajul suuf te ñun am nañ xolu yéene def d'accord mais ñu déglu man Pikine bii ma nekk nii yaakaar bi ni mu toll ci man tere na ma nelaw wàññeeku naa lu toll ak douze kilos mm, d'accord ak ni ma tolloon donc man nekkatuma nit ah, nelawatuma ba doyal ndax lan maa ngi xool bu dund yi ñëwee ba ñu séddale ña ñu bàyyi te jóg jàkkaarloog man ma xam leen xam fi ñu dëkk nekk seen maire di ak ñoom lan laa leen di jox lu leen giifal loolu ku mag maa ngi koy négocier koo négocier mu ne la duma la jox ndax amu leen koppar ndax da ngeen a mais vous êtes non seulement impacté mais léegi nu sommes des impactés oubliés <laughs> jërëjëf euh, mbokk yéen a ngi déglu réew mi FM seen émission pencum réew mi tey ñu invité euh, Amadou jara maire bu euh, Pikine Nord mais Amadou Diarra fii marché bu mag a mag a mag Euh, am na Pikine euh, di marché Zing euh, ban organisation yow moom nga indi ci ci marché Zing. waaw loolu balaa ma ciy wax il faut que ma tiitaru sant yàlla laal bant. Mhm. ba tey amuñu benn cas bu ñu fa déclaré te autorité yi ñoo ngi contrôlé marché Zing te gis nañ ni teg nañ fa benn dispositif bu ca ca njëlbeen ba ca ba ñëpp di nelaw mu fekk na jóg nañ. marché Zing marché Zing. dama lay fàttali rek ci tiitaru bi may wax ni le 3 mars. ay date laa lay jox te dina la yéem. Mhm. le 3 mars le premier cas bi déclaré Sénégal génn. Mhm. sunu préfet Moustapha Ndiaye préfet département Pikine yëpp le 7 mu woote. 7 mars 7 mars kon ñaata fan lañ ci teg ñeenti fan. ñeenti fan préfet woote 10 heures comité de départemental de gestion de l' épidémie. Mhm. boobu nekkagul sax pandémie. Uh-huh. épidémie la woon. c'est des. GE comité départemental de gestion de l'épidémie man comme damaa ay bëri mbokk yi depuis bitim réew samay rax yu ma bokkal ndey bàyyi samay waajur samay sœur ñëpp a nga fa affaire bi topp ma ñor ma ma ne nag comme nag maa ngi dégg ci télé yeeg France 24 BFM CNN naa daw ci réunion ba xanaa dinaa fa gis dara fekk ci réunion bi war nañ ma ñu ci war a bokk ay médecin chef de district infirmier chef de poste ay technicien ma ne fii bu ma fa demee samay kumpa dina gën a leeral may déglu yàlla def ba ma ñëwee ci département Pikine ba mu daj fukki maire ak juróom benn la am ak maire de la ville muy fukk ak juróom-ñaar man kese fa teew ñenn ñi ñëwuñu ñenn ñi yónnee loolu nag si singili ma ba ba ñuy wax dañu naan jaraa yow neen sa mbokk maire yi jaraa yow ma xam ne yàlla sas na ma sama teewaay bi ma ne bëri mais du ma yeggalee réunion bi sama compte laa dem génne un million deux cent dugg ci marché zinc bi kaw tali bu mag bi bu dee ñoo may déglu falaa nduggee ndugg xam nga ndugg mm-hmm. ca réunion ba maa ngi fa bàyyi madame euh, sugu moo yore dispensaire ba ca Daaru Xudoos bi ma tuddee imaam imaam Madani lii mhm. ak maternité Cheikh Ahmed Tidiane Diop ak madame sàll moo yor dispensaire municipal bi ma tuddee Ibrahima Sele Ndiaye mhm. moo njëkk jël këram jox ko municipal fii ci pikin mhm. ci santé la doon yëngatu ma woo leen téléphone yéen ci réunion bi nga tasagul ba léegi ñu ne de ma la man ne maa ngi ci marché damay bañ jumaa jot ndax àjjuma la lan ngeen bëgg envoyé ma ko SMS ñu waxtaan kii bul fàtte gel bul fàtte madaar bul fàtte eau de javel bul fàtte siwo yooyu ànd ak satala yi paan yooyu te ñuy raxasu lavoir yooyu mhm. bul fàtte yi ñuy ménagé ma jënd lépp valeur huit cent et quelques mille des des sama wecc le sept laa la wax de mhm. le huit nekk journée mondial de la femme mhm. ay groupement yu ma defoon parrain ma jox leen ay bagages valeur trois cent quatre vingt quatre mille ñoom it leen jox leen ma ko daara yi Pikine ngir ñuy set ndax feebar bi ci salte lay jaar. altine nag ñu yeewu ma fekk dispensaire yi la ma leen dugaloon dem jox leen ko presse bi fekk ma fa ndax préfet moo ma digal ne maire comme yow rek yaa fi nekk dama bëgg boo fi jógee booy jëf wal presse bi ndax maire yi xam ne ab maire jóg na. kon mun naa bàkkoo ne. maa njëkk a jóg ci Pikine. te comme ñeent ñeenti fan la mun naa wax ne ci Sénégal maa njëkk a jóg. ba ma fa jógee ma ne damay dem ci école yi. ndax bagage yi des na te weccet bi des na. fa ma toogee ak sama staff di réunion. pour jëm ci école yi ak jàkka yi ñu dégg bataaxal ne tëj nañ école yi tëj nañ jàkka yi kon fu des marché ma woote convoqué convoqué délégué yi yëpp ba ñu dugg si ay masque laa leen jox yi ma may dispensaire jox leen ay masque jox leen ay gel kenn ku nekk ba ngeen ñibbi da nga yóbbu gel 500 millilitres mm-hmm. yu bees tàq di respecter distanciation sociale réunion ak ñoom pas sama bureau ca salle de délibération bu mag ba mm-hmm. te ñoom matuñu fukk mm-hmm. maanaam kii toog fii kii toog fii kii ma jël micro bu njëkk boobu waxuñu sax ay respect barrière ma réunion ñoom ne leen seen xalaat ba instrument wax leen noonu ko gisee ñu ne maire marché Zinc bi kenn mënu ko maîtriser ndax lan ay bunt yi bunt la ëpp na fanweeri bunt fu nekk la nit di jaar noo koy maîtriser ma leen ñu tëj ko ñu ne ah, boo ko mënee def de ma leen mën naa ko ak lan ñu ne ah, bu ñu mënoon teg ay xale ci bunt bi am kuy dugg da ngay raxasu ba ci commerçant yi te nag maire li ci ëpp solo mooy marché bii il ñu raxas ko ndax këj nañ ko raxas commerçant boo nekkaa ñu raxas marché bi mu ne la benn bés laay perte man leen perte benn bés moo gën ñu tëj marché bi doo leen jaayati di ñu ne ma waaw yaay décidé man leen dimanche ñu tëj ko dem leen ngeen wax ko commerçant yi jël leen crieur public ne leen dimanche ñu ñëpp ñëw boobu Sénégal benn cas la benn cas la ñu déclaré ma jël mesure boobu commerçant yi fekk ma ci ne ma nag boo amoon ay t-shirt jeunes génn ma defar t-shirt defar casquette woo presse bi y avait de vingt quatre organes de presse ñu dugg ak man ci biir marché bi j'étais le premier maire à investir moo marché mais dama def concertation ak samay commerçant mais vision bi la ma tax président ma ko. waaw xaaral ma dem laaj ko xaaral ma dem laaj ko comme nekk fi mënu ma ko laaj. Euh, xaw ma lu tax amu mais en tout cas man dama toog échanger ñu wax ma bunt yi nañ bàyyi fi fukki bunt bunt bu nekk ba fii may waxee yow. ma teg non lan moo tax nga njort ne mën naa accès Sénégal bëri fi. te mu am benn cas. mais parce que ni mu amee Europe France quoi contact yi ñu ba ñuy généralisé ay masques ak yooyu ñun donc dañ koo dabee maa ngi suivre nee naa la dama am ay mbokk yu dëkk. Europe yow yow bi ngay wax 7 ngay wax le 7 mars. le 7 mars le 7 mars mais ñun marche yi ñuy dégg fii euh, préfet gouverneur di ko jël Dakar. temps yii moo tax ma ne la man ci jóg bu jóge bi la moo tax ma ne wax damay tiitaru. sama marché ngi dox ba tey commerçant yi macha allah je touche ñoo ngi dem ak dikk léegi léegi oto bi ba ma rombee benn cantine bi ma gis ñetti nit toog nii teg seen portable di lido damaa gaare oto bi wàcc ñu génnee seen po eh, mer mer man leen takk leen masque nga naan man naa mer mer da ngeen bëgg ñu tëj marché bi ñoo ngi jégalu ñoo ngi jégalu xam nga mer nag affaire daa metti de man bu leen may buntu ku ñëw di tëj suñu marché naan la jaraa la waxoon dañ na ndax marché bi buntu la pour tas fi feebar bi commerçant yi ànd man sensibilisation créer seen groupe whatsapp ah nañ leen wax li maire def de ma ànd koog préfet nag sous préfet Oumar Sagna Ndiaye maire dañuy tëj marché bi man ko ala ala ci tukulóor mooy déet la ma def jarul tëj ndax économie bi dafa war a bokk ci li tax nit ñi mën a xeex corona bi du xam-xam du xel yeewu rek di tëj jëlal mesure ci bunt bi dama koy bale mu ne ma mais il faut ma jël arrêté ma ne ko na police ñëw ñu jël arrêté ñu fixé benn heure man suma marché waxtaan naa commerçant yi nangu nañ au lieu de six heures du matin léegi sept heures la ñu xëy après wàcc cinq heures wàcc dix huit heures dix huit mu ne ma noonu dix huit heures bëri na ndax couvre feu bi vingt heures bu ñu mën a diggante wàcc ak daw ñibbeek yooyu mun a am ñu kii nañ ko wàccee ba cinq heures ma ne ko xaay ñu jàpp kon mu génnee arrêté ñu ne léegi marché bi sept heures ba cinq heures ñëpp di ko respecté xale yi taxaw ci bunt bi dañoo war ay mbuub mbiib sifflet quatre heure et demie su paasee rek xale yi taxaw ci bunt bi ñaar la kenn ki mooy jot dugg ci biir marché bi prix prix wàcc jot na pare leen pare leen cinq heures ñu tëj marché bi génn ñëpp dem te ëllëg si ñëw ma jënd yi bërigo nag teg fa indi ay magasin ci biir marché bi mhm. di fa yóbbu saabu di fa yóbbu ay mouchoir di fa yóbbu ay gel di fa yóbbu ay madaar ay lave-mains mhm. teg ko fa jël ay masques chaque deux jours ma yóbbu fa cent masques ci marché waaw di ko no pour personnel bi mhm. pour ñi ma teg ci bunt bi jox leen blouse pour ñu bañ ñoom ci boppam ñu bañ a maa dugal sama bopp ci biir marché bi jël samay gel place par place bés bu njëkk ba. 500 millilitres may leen ko xam naa ne war na jeex léegi parce que mars la woon. ba tey ñu ngi ci mai. kon man teel naa jóg. léegi nag bu des jóg yow teel ngaa jóg en tant que maire mais état Macky Sall teelul jóg. ndax gis nañ ñu bare bare loolu lañuy wax moo xam euh, aéroport yi la moo xam moo xam frontières yi la moo xam euh, leneen ak leneen la mais remarque bi mooy yéex na jóg. waaw xëy na xëy na ba ñu ba cas bu amee bi cas bu njëkk bi amee dafa doon déglu techniciens yi te techniciens yi balaa ñuy wax scientifiquement la ñuy wax man nag dafa fekk ma déglu ay techniciens yeneen yeneen réew ba xam ñoom seen yéex a jóg lu mu leen indil. xibaar yooyu comme àdduna bi léegi ñëppay déglu internet la lépp ak ñu mbokk yi ma fa am ñu naan man man kat ñu xëyatuñ da ko waral léegi lii est-ce que la mu ne ñoo ngi koy diingat wala fu mu toll nii France ñoo ngi wax déconfinement. ñun temps ñoo ngi doon wax couvre duñ ko yóbbu 6 heures. Mhm. léegi ñoo ngi wax xale yi ndax dañu jàng ji. Mhm. yooyu fekk na ñun. jël nañ ci ay mesures. d'accord man fu may wax nii. école yi bu ñu ñëwoon suba la ñuy ubbi. école yëpp dinaa ko désinfecté seen budget taxaw. école yëpp Pikine Nord Pikine Nord. classe su CM2 yi. moom laa yor dinaa ci boole classe su troisième yi ak ak terminal parce que yoruma leen yooyu. mais comme sama commune am nañ lycée CES. ay collège dama leen di jël en charge parce que batiment yi sama commune lañ nekk mais bokkuñu sama kuréel sama compétence. man école primaire laa yor. du ma yem ci école primaire. fii may wax yow tey réunion naa ak Zoom ak sama président commission éducation Serigne Sama Mar instruction bi ma ko jox demal inspection nga indil ma nombre d'élèves ak nombre de classes de d'examen que ce soit primaire euh, collège ak lycée tey laa ko ko sant te le 2 juin la ñu wax kon weer bi deewagul maa ngi jël ay mesures pour maîtriser yan moyen laay indi ca ñaata classe ñooy ubbi ci biir sama commune ak yan dispositif laa fi teg naa ba ci jour examen yi bu fekkee koor gi weesu na añ ya ñuy añ ca biir ak ndékki yi ñuy ndékki ak personnel ba pare naa ko donc loolu mooy anticipation loolu mooy planification loolu mooy refus du pilotage à vue donc man noonu laay liggéeyee sama ase yi maire yu bëri dañoo jël seen kopparu subvention ASC ne nawetaan amatu waa su corona bi jeexee avant fin du mois bi nag nawetaan daa jotagu mhm. kon fu ñuy jëlee seen xaalis te ñu jëndoon ko ay ceeb ak ay nen ñëpp di tàcc naan waay waay bon maa ngi tooñ Barthélemy mhm. ba ñuy xeex di jël ay mesures de désinfection ay mesures hygiéniques ay mesures sanitaires moom dafa jënd ceeb ak dëwlin ak nen d'accord mhm. ñun ñi ñun jënd nañ ceeb ak dëwlin mais dañ ko mujj jënd mhm. dañ njëkk a def ba tax tey kenn duñu tudd ci cas yi d'accord macha allah foofu lañu foofu la ñu toll bon li ma ci bëgg a jeexale rek mooy marché bi dama bëgg wax préfet yi Dakar mesure bi mu jël na ko xoolaat na ko xoolaat day tiital nit ñi te day indi attroupement bàyyi nit ñi bés bu nekk ñu dem et bés bu nekk ñu jël dispositif teg ay nit ci bunt yi ay grandes surfaces yi ñu teg ku taxaw ci bunt bi banques yi ñoo ngi koy def ak nangam na mhm. mais nañ bàyyi mu doxee noonu nañu bàyyi mu doxee noonu jël mesure rek pour jël mesure way bon léegi ki bon léegi yow ku jëndul altine yaa ngi koy koj mercredi su téeméeri nit waroon tasaaroo ku nekk jënd fa nga jege téeméeri nit ak beneen téeméer beneen téeméer ñooy daje ci at ba ubbee alarba. mu indi rang indi attroupement ku ko waral préfet bi jël loolu. donc nañu bàyyi di jël des décisions nga xamante ne dañ koy copier te bokkul suñu ñun dañu war a dund ak virus bi. Ah nit la way doomu aadama la comme yow en fait pas doomu aadama mbindeef la comme yow. comme yow loolu nga gis. oui comme am na ay ay spécialistes yu wax loolu. oui waxuma ñu dugg suñu yaram man man dund ko tey tey da ngay sibbiru. Mhm. du feebar la. Mhm. après doo faj ju wër. corona da lay daal nga faju ci wër. waaw d'accord mais monsieur le. donc man li ma bëgg. Mhm, si si marché yi. dama bëgg économiquement la circularité de l'économie prime sur cette peur bleue la bu ñuy imposer en ci population bi ragal bi ba tax ñuy créer benn crise économique. Mhm. ba mu ba mu impacter nit ñi. tey psychologiquement. waaw tey non waxuma la sax psychologique mais ñaata activité. Mhm. tey ana ana ñu doon def conférence ci weeru koor yi. ñi doon luye bâche yi. ana ñu hmm. activité amatul. aujourd'hui Europe ñoo ngi fay jëma hmm. ak dee yi. Hmm. parce que dañu ne buñ ko ragal quoi en fait. nañu génn. nañu dal ñu faju ji. nañ mais mais nañ ko moytu. bu fekkee masque boo ko amee. do doo ko doo ko wàll sa morom. mais wutal masque. li ñun am nañ ay téer yu koy def fii lañ ko njëkk defe defee. masque yi ngay dégg Sénégal fii lañ ko njëkk a defee sama commune. fédération des tailleurs de Pikine Nord ñoomu fi njëkk may 200 masques moom ma commandé leen 1000. boobu yàgg na. te te bu njëkk ba. ba boobu kenn waxu ko imposé gul kenn imposé gul masque. barki Seydina Mohamed. billahi Ibrahima ñaan bokk na ci comité bi ma lay wax. dafa bokk ci fédération des professionnels de l'habillement dafa dem ñu gis vidéo yi ak statut yi. Mhm. seen président woo ko ñu am commande 2 million masques ci ministre bi. Mhm. mu ñëw séddalewaat ko fii la jógee. masque tissu ñu def logo Pikine Nord ci digg bi nii sama logo Pikine ba ñuy wax gel yi fii di wax ne wéy am na maire bu def gel man la def gel def sama photo def ci message di wax ne sama sa population man seen maire borom photo bii maa leen di supplier ngeen respecter les mesures barrières ay ay ay Ahmed Aïdara xamuñu li ñuy wax naan lu tax feebar bi li ñu di feebar ñu koy def ci gel tey ñëpp a ngi koy def ci masque mm-hmm. lu tax waxuñu ça veut dire dama leen njëkk a dama njëkk xam ne maire yi dañoo war a dugg ci xeex bi préfet diggal ma ne ma communiqué ci pour yeneen maire Sénégal yi jóg su maire yëpp jógandoo 550 collectivités locales bu ñu duggee jàppale seen askan yëpp jóg comme maa nekkoon capitaine bi ma jóg ñëpp ñëpp a ngi jóg di def politiciens yi jóg di def ñu ñu campagne ko comme ni ñuy defee bu campagne électorale jotee nit ñi jóg dem ci askan bi bala xaar bañ xaar askan bi ñëw ci ñoom bu ko defee ñu solution ñu sauver la crise man sama commune bi macha allah population bi maak ñoom samay mbokk dañ may woo téléphone naan ma mais xanaa da bëgg a yóbbu corona kër ga xool ni ngay roofantoog nit ñi mais xool laay demee te yàllaa may protégé. damay jël mesures yi gis nga masques yi moo ngi nii damay am ay masques damay am ay gel ba léegi maa ngi ciy maye mais xool laay demee. pour ñu dégg ma. waaw mais monsieur le maire euh, yow est-ce que gisoo ne communication bi ci état bi def. xawut a nekk communication boo xam ne dina tiital askan wi te tiitaange googu tamit euh, stress la boo xamante ni mën naa gën a doy waar ka jàngoro ji. je suis parfaitement d'accord communication boobu moom doy ay amu fii kenn du ko faj nangam nangam euh, moytu leen toog leen seen kër déedéet protégez-vous te dem doxi fulla yeeg farata yi. sama mm-hmm. me permet de dire yi néegu yàlla ñuy wéetal nii ci benn benn mbindeef bu tudd corona pourquoi. d'accord gorewuñ non dañoo gorewul dañoo gorewul Sénégal ñoo gorewul yàlla sequl ak ñun lu ñuy dëddoo ay këram ak yi néegam gorewuñ suñu mënee wax ñu dégguñu yàlla la suñu mënee nooy mu jàll yàlla la suñ lu ñu def yàlla la tey ñu mun ko dëddu néegam ndax ragal ragaluñ ko moom ñuy ragal virus c'est une erreur màkk nag ba fii c'est une erreur d'accord ci duma chef religieux nag mais man dama bëggoon ñu défier ko la fois ay nit di nga am ngëm-ngëm tàll sa loxo ne yàlla may ma mu taw mu taw te doo wëlliw doo bu doo dara ngëm-ngëm bi ñu benn la mais gore benn la li Sénégal dañoo gore di ci kanamu yàlla ci nit ñu dëddoo néegam yi wax nañ dëgg julli julli fu mu doon fekk mën nga fa julli d'accord mais yàlla daa bëgg xoolal màkk kaaba ga suñ toogee ba yàlla yónnee ay picc ñu koy waral ndax nit ñi absent nañ mm-hmm. doy na waar c'était triste yàlla dañ ko war a daw jublu ji. parce que mooy solution bi. d'accord mais duñ ko daw pour xeex corona. d'accord euh, monsieur le maire euh, Amadou euh, Diarra yow yaay maire bu Pikine Nord ñu invité la ci rajo Rewmi FM léegi euh, woppi coronavirus ñëpp xam nañ jafe-jafe yi nga xamante ni indi na ko ci euh, ci àdduna bi jafe-jafe yi mu indi ci mbirum euh, koom te ñun léegi lan lañ ci war a jàngatee ñun ci mbiru santé ndax ñun gis nañ ne. suñu bërëbu fajukaay yu baree baree baree bari dafa na sax gis nañ ne ñun euh, amuñu bayuñu loo xamante ni tey bu ñu bëggee dund ci li ñuy bay la ñuy dund dañ ko dem jëggaani ji bitim réew engrais sax jamono ji euh, li dafa li ñuy ba liggéeyee ci réew mi fii lu néew la xam ne bitim réew lañ koy jëlee ñun lan lañ si mën a jàngatee lu jëm ci xoolaat suñu wàllum santé ak suñu wàllum mbay ak surtout euh, bay du dundee. ko. xam xaw ma mais am na ko xam ah, man mii sama jëmm nii xaw ma ko. xalaatoo lu ñu war a jàngate après Covid xalaat naa ko dama ne xaw ma ko xam lu tax ma xaw am ñu seen xam-xam màcc ci loolu tey suñ ma ñëwoon yaay njiitu réew mi dama ne naan xaw ma ko. waaye am naa senegal ñu ma mën a poñe tëj liggéeyloo leen ci loolu xalaat boobu déggoo ma de. dégg naa la. Hmm? réew xam nga moomoo ko. Mm-hmm. te yaa ngi animé émission. Mm-hmm. nit a teg ay dispositif ba yow nga bokk ci. Mm-hmm. dem indi ku mel ni Amadou Diarra invité ko fii. Mm-hmm. man bu ma doon jiitu réew mi spécialiste yi laay tëj xam nga tëj. mille milliards yi. dama leen di gardeel seen ginnaaw seen kër. dara du manqué. koriteeg ubbiti école ak añ reer ndekki. ne leen tëju leen adduna bi dafa war a am lu ñuy wax remondialisation. ou la remondialisation. fa lañ jëmee. parce que toog nouvel ordre mondial bi ñëw. non bon moo tax ma la bëgguma ñu topp wax ji rek fa lañ jëm maanaam nouvel ordre mondial ñu xam ko ñu ñàkk ko xam buñ ko waxee te jëfewuñ ko danañ tardé. xam nga Macky Sall président Macky Sall wax na mais sentiruma fuñ ko tegee maanaam jëlaguñ dispositif yi man bu ma doon def damay dem université Saint-Louis dem université Dakar université Cheikh Anta Diop képp kuy sociologue anthropologue chimiste juriste. avocat euh, professeur d'enseignement général euh, commerçant chef religieux sëriñu daara tout le monde ma teg ay sous comité de réfléchir lendemain corona lu ñuy def bu fàtte béykat yi quel lan la ñuy béy quel médecine bi est-ce que médecine scientifique nag normal walla est-ce que dañu war a jël nag médecine moderne bi kaaw Madagascar bi kaaw joxuñu ndax joxuñu joxuñu joxuñu joxuñu leçon. pour ñu xool ndax dañ koy béy suñu yu ñu am fii ñun yeneen yi anamu suñu suñu laurier yi euh, ban njëriñ lay am ci ci corona. ak lu leen lu dul corona. suñu suñu euh, fruit yeneen yi avocat. suñu bëri na corossol bi. barki démb dama ci wut ay xob indi ko pour pour pour faju parce que dafa baax ci ci tension. lañ ma wax te docteur yu bëri dañ koy nëbb ban dose lañ ciy def médecine en réalité ci àdduna bi Sénégal lan la ci ak Afrique lan lañ ci war a taxaw ba tey lu dul corona sax bu dikkee ñu yaakaare ko Afrique ban dispositif suñu chef de yi ban cotisation la ñuy cotiser ci seen i budget yi ngir teg benn institut de santé ou de médecine africaine teg ko en terme de armée lan la ñu war a teg pour maitriser suñu frontières yi ñu mën di joxante information pour su amee lu mel nii pour nit bën ko mun ko bënn jëlee ko fii jëlee ko fii bëtt frontière bi jaar fii ñu information yi di jàll est-ce que Afrique jotul ñu am satellite pour mun a am une surveillance danoo aérienne pour mun a surveiller suñu frontières yi est-ce que du occasion ñu am ko en terme de finance est-ce que jotul Afrique créer une banque après corona bi ñu toog chef d'État yi d'accord ne dañu war a am suñu banque propre ba dootuñu xaar Italie parce que tal ay mooram dootuñu xaar France ba mu pare ci ay mooram ñoo fekk ñun ñu ñun ñuy sukkuraat non ñun ñoo war a taxawal suñu bopp est-ce que question yooyu xaw ma seen tontu mais am na ñu xam seen tontu woowal militaire yi ay ay génie ngi ci ay jinne ci xalaat ñu ngi ci ay ñu jàng ngi ci bu ñu la bindalee discours nga ne waaw ay philosophe ngi ci réew mi mais professeurs yi ñuy xeeb ñu nekk ci yor seen njàng di gëstu bu ñu leen jëlee sant leen benn liggéey seen xam-xam jëm ci ñu financé la recherche foofu laa bëgg ñu dem. mais yaa ngi doon wax sànq Madagascar mais est-ce que tailleur yi tamit ci masque yi tamit joxe wuñu exemple que ne Sénégal lu mu soxla am na ay doomu réew yu ko mën a liggéey. mais formidable foofu laa wax ne bu ñu toogoon wax lii ñu ne problème masque ñu ne léegi nañ leen def masque façon bi na ñëpp discipliné. bii mun nañ ci nooy bii day fatt bii boo amee asthme bii ngay jël et cetera téere mun na leen ko wax indiqué leen ko professionnel yi la ñuy woo ñu wax leen ci Macky Sall xama ko man xaw ma ko Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé xama ko ñi ko xam ngay taaj la wax dama bëgg ñu comprendre euh, diriger ce ne pas être capable maanaam booy diriger du yaay jëf mais am nga xam-xamu jëfloo waaw ah, maanaam am xam-xamu def leen ñu def xalaat leen ñu xalaat segg leen xalaat yi won leen ma yoon mm-hmm. leen ci lii ma gàddu lii loolu njiit du njiit gi moo ko mun a xalaat Macky Sall boo ko laajoon en stratégie militaire xamu ci dara mais bu geer jotoon mu teg généraux yi ci wetam nu ñuy def foofu la loolu mooy diriger États-Unis noonu la ñi ñuy fal Donald Trump ay waa CIA waa FBI ñoo koy teg ci ay stratégie donc am na une grande administration américaine France Macron nii ñu ko wër ñoo koy won yoon fu nekk Sénégal ñun man de man noonu lay doxalee d'accord démarche inclusive et participative bu may dugg ña fa nekk acteurs ya saytu seen xam donc li ma laaj ci Afrique surtout par rapport ak ci Sénégal fii ñu jëm ci après corona ña ko xam ñu ngi fi toog dañ leen war a woow liggéeyloo leen ci loolu en terme de recherche en terme de réflexion prospective en terme de de de vision du de de, de après corona et même pour au monde nouveau c'est pourquoi je parle de la remondialisation adduna dafa juum adduna dafa juum après trois deuxième guerre mondiale bi fañ ko teg mooy développement industriel fañ ko teg mooy développement informatique ordinateur pencum kat dem ba léegi ay puces lañuy doxe dañoo juum fàtte nañ lekk beeg santé bi fàtte nañ ko mode moo ngi dox c'est bien mais dafa am ñaar yu am moo di jafe France Espagne Italie ba ba Amérique ndax mbir mi tamit dafa mel ni dafa wane seen i faay mooy faay dañu fi ñu fàtte fi ñu orienté ci développement mooy armement militaire technologie yooyu la ñu jàpp ne ku ci gën a xarañ defari avion naaw voilà yooyu mais boobu tey boo nekkee ci psychose bi loo koy doyee boo lekkul ba mun a wàcc ci mbedd mi daanee gouvernement yi loo koy doyee kon l' agriculture l' alimentaire l' ñaar yooyu moom la ñu war a la ordina bi war a war a war a jublu pour maîtriser ko mais dama manière in vitro maanaam dëkk bu ne nga maîtriser ko sa boor am na boroom xam-xam yu wax ne faj yàlla da ko sosaale ak gox maanaam mënoo nekk puune dëkk ci Afrique di fajoo puune bi nekk Europe di fajoo bokku leen. bokku climat. munoo nekk euh, silmaxa fi dëkk Sénégal di fajoo silmaxa bi nekk Sénégal munoo nekk ku am euh, hépatite B dëkk fii fekk xaj euh, reen bi lay faj moo ngi fii nga bëgg reen bi ki nekk Mulhouse ca France moom loo lay faj c'est-à-dire il faut que ñu xam ne feebar bu nekk ak contexte bi mu nekk xëy na garabam fala ne mais ña ko war a def recherche bi ñu ngi fi jàng ko am xam-xam suñu rôle ñun dirigeant yi. mooy encadrer ces recherche ba mun nekk lu jëlu njëriñ ci askan wi. jërëjëf euh, monsieur le maire ñoo ngi lay sant di la gërëm waxtu wi jot na ana lan ngay tàggoo mbokk yi. li may tàggoo rek mooy bu ñu raté le train de l'histoire jamonoy toog gestu ginnaaw seet fu ñu jëm foofu lañ toll. toog gestu ginnaaw xool fu ñu jëm suñu ratee foofu dinañ fekk ñu jóg xool seen ginnaaw ba jëm ñuy lang ci ñoom. mu nekk aussi l'histoire qui se répète. ñu fexe ba tey tubaab dootul diriger nit ku ñuul ci fii ba bu ñu jaaxlee. nit ku ñuul mooy taxaw. adduna bi ci ñun la woon civilisation sunu maam yi ñoo njëkk nekk ci adduna fàtte l'Afrique est le berceau de l'humanité kon première civilisation bi am fii la woon mais dañ ko joyanti di joyanti voyageurs européens yi ñëw tukki fekk ñu fekk ñu Égypte ni bi jël ko yóbbu ko gën ko développé gën ko développé bañ koy jaayaat ba tey kañ la préparé wu pour ñoom ñu dellu su waat ñun fekk ñu joyante ko ba mu gën a kawe di leen ko jaayaat nekk à la domination du monde. loolu mooy suma rêve te jot na occasion la ci lii nii ci corona bi toog gëstu boobu gëstu ci ginnaaw fi ñuy passé xool fu ñu jëm ci avenir suñ ko suñ ko ratee. dinañ dinañ gàddu bàkkaar ci génération future yi ñëw ndax suñuy maam rate nañ la kot su lañ doon wax. maa ngi leen jërëjëf euh, monsieur le maire euh, Amadou jara maire bu Pikine Nord kon mbokki ju leen di sant di leen di gërëm moo nekkoon seen émission pencum réew mi muy am euh, samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Adama Diallo moo nekkoon ci technique bi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.